moomeelu réew mi yitteel ñu bëri moo tax ñu fas yéene dalal ay kilifa boroomi xam-xam fii la ñuy teew di doon samay gan moo xam ci pouvoir lañu nekk opposition wala sax société civile lépp ngir jëndi askan bi ñu daal di gën a leer ci li nga xamante ne rek mooy li ñu bokk ay bés bu nekk lay doon fii ci Sans Limites TV bu leen ko wut jërë ngeen jëf yéen yu ñuy topp ci sans limite euh, TV kontaan bu baax dellusiwaat ci seen émission face à l'actu ñu koy defee dimanche bu jot ñu dalal benn gan waxtaanee li nga xamante ne rek moo nekk ci biir euh, réew mi euh, ci wàllu actualité tey ñuy dalal koo xamante ne ñu ngi bokk ci cabinet bu président Ousmane Sonko di Balla bi Moussa Balla Fofana j'y arrive nekk également ki nga xamante ne rek bokk na ak moom bind ab téere ñu dippee ko les territoires du développement. pour le Sénégal ou plutôt les territoires du développement moom ñoom ñaar ñoo ko bind mu nekk itam coordonnateur euh, bu euh, programme bi nga xamante ne moo laal wàllu présidentiel municipal ak législatif bu parti boobu di euh, PASTEF nekk itam consultant ci wàllu finance planification ak projet tey moom la ñuy dalal daal di yaatal waxtaan bi ci ponk yu bëri nag du ñàkk dinañ ci dellu si kanam kilifa gi kontaan nañu boo koy yokkalaat. C'est vraiment un plaisir d'être sur Euh, c'est la première fois may ñëw sans limite. donc mhm. euh, di ñaan yàlla mun na bañ a nekk la dernière fois. ñu def ay émission yu bëri waxtaan ci sur ce pays que nous aimons tant ci lépp luy tax rek Sénégal di jëm kanam donc c'est vraiment un plaisir merci de m'accueillir euh, sur votre plateau di nuyu téléspectateurs yëpp beral loxo waa Bawol ñi nga xam ne fa laa bokk. jërëjëf alors démb gis nañu appel di seen président def. jëm ci euh, li nga xamante ne rek moom la indi gannaaw bi autorité bañal leen ngeen am meeting d'investiture bu seen candidat fële ci stade euh, Amadou Barry bu Guédiawaye kon euh, ngeen nekkoon dem yéen ñu woon ñu bi di participer ci concert xam nga ñun parce que lu ñuy woote dañ ci jiitu donc démb ñu ngi nekk sur le terrain def concert de casserole bi mu nekk benn moment bu nga xam ne dañu doon wan rek euh, régime bi fi nekk. Mm-hmm. que yàlla du tëj bunt tëj palanteer c'est pas possible. donc euh, et dañ leen doon wan aussi que fi ñu bëgg a dëkkal bëgg ñoo dëkkal ne ñun ay on est des coow la ñuy wut fitna la ñuy wut ñu wan leen mën nañ muñ li ñuy teg te mën nañ ubbi beneen ouverture boo xam ne sax mooy gën. Mm-hmm. ndax dem Amadou Bari def. meeting d'investiture def nañ ko defaat ko defati ko. je pense que réew mi Pastef fu woote feesal foofu wane dooleem loolu nekkatul nekkatul nouveauté. Hmm. par contre organiser concert de casserole sur tout le territoire national ci contexte bu mel nii nga xam ne jël nañ Ousmane daanaka tëj ko. te benn benn décision de justice waxuwul ne mën nañ ko tëj ndax li ñu ko def si kër doole prison la. mais malgré cela c'est cet homme qui donne un mot d'ordre na nit ñi sol rouge askan wi sol rouge na nit ñi def concert de casserole nit ñi def concert de casserole de casserole. mais da ngeen ko dàq ba jëmmi jamono. dañ ko dàq ba jëmmi jëmmi jamono dañ leen bëgg a wan rek ne fi ñu bëgg a dëkkale dëkkuñ fa. dañ leen bëgg a wan ne lu ñu tere mën nañ am lu ko gën. Mhm. dama bëgg nguur gi xam ne yàlla mooy may. mais suñu déggee seen nit mu toog di wax yiki ay kàddu di wane ne maanaam ci loxoom la nekk bëggee jàmm am bu bëggee leneen safaan ba loolu tamit ndax nit ci duñu jàpp ne rek ni ngeen itam euh, yenn saay fitna googu ñu leen di bëgg a tuumaal yéen a nga jot non je pense que Ousmane li mu wax mooy jàmm ñun lañ yéenee askan wi parce que nag il faut qu'on remette les choses à l'endroit ñun nous sommes une association politique. Nous portons un projet. Ce qu'on veut, c'est transformer ce pays. Et ce qu'on veut, c'est faire une refondation de nos systèmes de gouvernance. liggéey bu rëy noonu mënoo koo def te jàmm amul ci réew bañ nañ ko ba dañ ne 2024 bu ñu ñëwee nekk ci bopp réew li ñuy jëkk a def mooy jéggale. on a déjà sax pardonné tout ce qu'on nous parce que nit ki mënoo ne da bëgg a ci garab bi te bu ñu sànnee xeer nga wàcc delloo xeer la mënut a nekk xam ñun aujourd'hui nous ne demandons qu'une seule chose nañ ñu bàyyi ñu bokk ci élection buñ ñu jéem a bloqué c'est tout ce que nous demandons demandé wuñu rien loolu ndax demoon ci dialogue ba waxtaanee ko doonu gën a euh, yomb ci yéen. non exposé ko foofu. c'est deux choses différentes c'est-à-dire que ni euh, un citoyen dafa mel ni ne kon citoyen bi su bëggee voté day dialogue ak Macky non on est dans une démocratie. Hmm. démocratie boo xam ne moo jur Macky Sall ci zaahir ak ci askan wee jur Macky Sall ak askan wi moo samp présidence de la république mu nekk institution bu nga xam ne peuple bee ko jëmmal donc c'est des citoyens yu nga xam ne à part entière am droit de vote am seen sens critique am seen analyse am seeni droit ak i devoir lan mooy Macky Sall bu faloo ci réew mi ku bëgg a bokk da ngay discuter ak moom non loolu ñun buñ ko nangoo moo ñoo ngi nangu ne Macky Sall la régime la bu nga xam ne lu ko neex lay def non ñun demuñu dialogue pour bokk ñun dañu bokk ko noppi ci réew mi lañ juddoo fii lañ bokk am fi ay droit am ay devoir bés bu nekk nag ñu sax suñuy devoir donc ñun du ñu négocier ak kenn pour suñuy droit. fan ngeen wékk ne da ngeen bokk te gis nañu ay condamnation yu tegu ci seen kaw njiit fan ngeen bëgg bëgg a jaar ci yenn anam. premièrement li ñu li ñëpp xam te je pense que avocat yëpp wax nañ ko mooy amul benn procès boo xam ne tey mën nañ ne c' définitif amul yëpp ñu ngi ci cours. Mm-hmm. te fii léegi mois lu ne xaj na fi. te politique yi ñu xam nañ ne procès yëpp c' est amul benn bu nga xamante ne nii tegu na si dëgg procès yëpp politique moo ko lal donc xam nañ ni politique moo koy réglé li si kanam rawul bët. lan moo waral tey euh, seen ji mën naa ne employé ci jamono ji la méthode douce parce que avant xëy na am na noo xam ne su ko waxee woon euh, mbir yi doon la gën a doy waar ndax gis nañ ci li ñu génn ci événement début juin yi stratégie bu bees la wala. non changé ne concert de casserole nañu solo kii mu nekk manifestation boo xam ne c'est pacifique. il y deux il y deux choses même même trois choses. ñun ay nitu jàmm lañu mës a doon c'est-à-dire que sénégalais nit mënoo juddoo nekk un vrai sénégalais bon temps di doon nitu fitna fitna moo xajul Sénégal. fitna moo munta nekk Sénégal Sénégal ku fi nekk da ngay waxtaan ak nit ñi saafoonteeg nit ñi. naxanteeg nit ñi ba defal leen li nga leen bëgg a defal. loolu mooy la réalité mooy benn bi deuxièmement chaque fois que fitna am si réew dañoo fekk suñu toog suñu ñàmb ñàmb ñu dugg suñu gaar à chaque fois. jëlal boo mën di jël affaire Prodac dañ doon discuter sur lu nga xam ne alalu askan bi la. Mhm. rien quoi de plus normal pour une formation politique de discuter sur la gestion des deniers publics et de parler d'un ministre pas d'une personne gis nga ni ñu transformé débat bi yóbbu ko sur un cadre purement personnel. ñun preuve la wax ne gisul preuve te waxoon na ni yor na preuve. on a le droit de se poser des questions sur la gestion de nos deniers publics ça c'est Encore une fois, on est dans une république. Nous sommes des citoyens. Et le ministre, l'étymologie du mot ministre mooy serviteur. Mm-hmm. donc man doone yow sama serviteur nga ba noppi nga ne je ne me pose pose pas de questions sur le travail que tu fais pour moi que j'ai raison ou que j'ai tort personne ne t'a obligé d'être mon serviteur donc dès l'instant que tu te mets dans une position je suis le président d'une nation je suis le ministre d'un peuple mais et kenn ku ci nekk muy paysan bi muy urbain bi muy kenn ku nekk am na droit taxaw ne la Aram Touré je veux que tu compte parce que je pense que da ngaa def lii ak lii ak lii j'ai l'information c'est la démocratie mm-hmm. donc chaque fois bu ñu amee problème ci réew mi dañoo tooñ sénégalais nag yenn saa xamul ku défendre boppam xamul ki nga xam ne dafa danaan rek fitna fitna ba ca topp ñun nous sommes xam nga li ëpp ci askan wi yow lañ jox bopp parce que tey mu neex mu naqari loolooy li am sondage yi wane nañ ko li Ousmane Sonko ak Pastef di wane ci popularité ak adhésion populaire yaakaar naa de l'histoire de ce pays où aucun homme politique n'a eu cette puissance en l'espace de cinq six ans tey jii bu ñu organiser woon ay élections on passe au premier tour nit ñi xam nañ ko sondage yaa ngi circuler ku ne xam na ko lu la ko defal ba noppi nga xam sa responsabilité xam ne tey askan wi yow yaakaar na yow da dangay doo dialoguer wala doo am ouverture wala da am na waratuñu donc du question dañu changer askan wee ñu jox gëdd goo xam ne dafa laaj benn taxawaay bi évolution wu problématique bi ne ci réew mi moo dem ba mu laaj ñun tam ñu wane ne war na noo mën a reconsidérer. Hmm. d'autant plus que le président Macky Sall a posé un acte que nous saluons un acte important mooy ne il ne brigue plus de troisième mandat. a musul mën a am droit bokk. xam na ne askan bi moo ko ëpp doole te bés bu demee ci urne yi la mu fay jëlee du mot quinze pour cent mais comme am na lucidité dindil ñu bomb boobu nga xam ne ay fitna la naroon andi ci réew mi dañ koy saluer. et ça c'est une bonne chose te d'ailleurs bokkoon na li tax nanguñu woon dem dialogue parce que biñ ne dañuy dialogue dañ ne woon ne ñun li ñu xam ci njàng ak xam-xam mooy man ak yow suñu waree discuter da nga naan ma Balla voilà les dix points sur lesquels je veux qu'on ma ne la Aram voilà les dix points sur lesquels je veux qu'on discute ñu def benn liste donc au final on a quinze dix-sept points de discussion léegi dix-sept points yooyu lu luñ ci nangu ak lu ñu ci nanguwul garaawul parce que man maa accepté discuter ak yow sur ces dix mais man mënuma nangu nga rajouter onzième point boo nga xam ne pour man ça ne peut en aucun cas l'objet d'une discussion te nit ki nag loo nangu waxtaan ak moom rek bés bu ngeen paree même bu ngeen si jubóowul nangu nga see waxtaan. Mm-hmm. donc ñun loolu lañ doon bañ. mënuñu woon a dem sur une table de discussion alors que génnewuñu ay termes de référence te loolu xam-xam wane loolu la finance ki ñun ñi xam ne on a eu la chance d'évoluer quand tu es en négociation en affaires en diplomatie comme en politique tu ne négocies pas sur des termes qui sont non négociables donc ñun suñu suñu démarche dafa logique. da nga wax sànq nga ne euh, mën ngeen baale. Mhm. te yéen a ngi sax baale ngeen. est-ce que tekki na ni kon lii euh, acteur société civile yi ñeen ñi bëgg maanaam gis président Ousmane Sonko président Macky Sall toog waxtaan ngir mbir yi. mën a wàcc jàmm goog ñuy woote mu nekk loo xam ni nit ñi dañ koy euh, dund est-ce que loolu mën na nekk tey. mën mais ça a toujours été possible et d'ailleurs on l'a déjà fait nit ñi dañuy fàtte bi coronavirus ñëwee boobu suñuy confrontation gënoon a metti coronavirus bi muy dugg ci réew mi bu fekk ne ne ñun ñu ñu def ay digg sërëx yu metti hmm. dossier yu garaaw ne suñu ne suñ kaw boobu Macky waxul ne du bokk. nga bi ñuy wax coronavirus boobu troisième mandat mi ngi débat bu leer ci dëkk bi boobu ñun tollu amuñu dayo bi xëy na bi ñu am parce que Pastef moom trois mois yu def yu war rek yàlla di ñu gën a may doole donc boobu amuñu woon ni ñu toll nii. donc les conditions étaient moins évidentes pour que ñu andi discussion. et pourtant Ousmane Sonko dafa dajale ay cadre ñu liggéey ci ay jël suñu xam-xam li ñu am li gën a sell mooy suñu xel tënk jox ko Ousmane. mu jël jëmmam jooju dem ba ca palais. toog ak président Macky Sall jébbal ko li ñu bëgg ci réew ndagam coronavirus ab maladie moo taxoon bu waroon ñëw ci réew moo taxoon ñu toog waxtaan mais l'avenir de ce pays mérite les sacrifices et d'un point de et culturel le pardon nous grandirait tous. jotaay boobu naka lay mën a euh, former woo maanaam gis leen ñoom ñaar ñu toogaat wax wala boog day nekk ci anam boo xam ni même bu ñu yëgulee mu nekk ci suuf. ndax am na ñu ciy dox tànk yi jàmm médiation pour fexe loolu daal di. non man li ma ñun Pastef on ne fait rien ci suuf ñun moom dañu jël benn pacte. bu hmm. clair ni amuñu lu ñuy nëbb amuñu lu ñuy làq amuñu lu non non ñun li ñu bëgg yëpp dafa bëgg as parce que loolu lañ jaayanteeg askan bi soo gisee sénégalais jox ñu bopp c'est parce que daf leen leer ne Ousmane ñi mu àndal askan wee leen gënal seen bopp. te dañ koo wane nag lu dul benn du ñaar du ñett donc ñun waxtaan ak Macky Sall defuñ ko pour suñu mbir defuñ ko pour mbiram moom dañoo xam ne mooy gën ci askan foofu lañ ko teg parce que jàmm lañ bëgg à partir de 2024 ñu jox ñu opportunité wu ñu transformer ce pays loolu du am du nekk nii à porté de ngay topp haine wala ngay topp animosité wala ngay delloos ki lay sànni xeer on va être plus grand que parce nag il est toujours plus fort il est toujours plus important pour quelqu'un de trouver la force d'aller au a de l'animosité amul nag dëkk bi lu ñu waxul jiiñ nañu ñu ay sàcckat jiiñ nañ ñu ay fenkat nee nañ ay rebelle lañu cest dire que li Sénégal am li gën a rëy mooy unité nationale nee nañ ñun dañoo jóg pour sape loolu nee nañ fonk ñu suñu kilifa yi yaakaar naa dëkk bi amuñu lu gën suñu kilifa diine yi ce que Cheikh Ahmad Bamba représente pour un mouride ce que Cheikh Ahmed Tidiane représente pour un Tidiane ce que ce que Cheikh kenn ku ci nekk am na loolu dafa rëy ci yow nee nañu ne ñun dañoo ñëw bëgg a yàq loolu xool nañ Ousmane un père de famille ne ko yow da ngay yàqata hmm. amul lu ñaaw luñ tegul sunu der bi ci réew mi baale nañ lépp ci xol bu sedd guy jéggal nañ leen liñ bëgg mooy na Macky Sall delloo si xelam nee na bokkatul dañu ñaan yàlla ñàkk bokk bi bañ a doon ñàkk a bokk boo xam ne daf cee jublu songu Ousmane Sonko na xam ne Ousmane Sénégalais la comme moom frère la koo xam ne tey askan wi boo leen lekk leen bañ a dugub ñu xëy dem lekk bi ñu dugub mm. koo xam ne boo leen dem leen bëy ñu dem bëñ tey Macky Sall moo waroon xam ne Ousmane mi mën na réussir lu mu réussirul ci réew je demande au président Macky Sall de exemple sur moi man j'ai fait de la politique dama gëm politique dama xam ne politique dama ko bëgg dama daan politique avant Ousmane bi ma yàlla defee may échanger moom ba gis ne kii am na lu ko yàlla may kii dëggu na kii baax na kii oyof na fonk na borom xam-xam te bëgg na liggéey damaa jël lépp teg ko ci ko ne ko saa waay dirigé maa ngi sa ginnaaw pourtant ñàkkum fu la ñàkkuma fayda mais dama xam ne kii gor la kii mën nañ koo jiital parce que kilifa gu mot la na Macky Sall xool côté boobu ci Ousmane bàyyi élection yi am ñu jiital kenn ku nekk gañe bu fi Ousmane toggee ëllëg mu teg réew mi ci xam-xam teg réew mi ci dëgg teg ku si liggéey Macky Sall lu mu am ci xel mu xelal ko ñu avancer parce que nag nous sommes un grand peuple nous sommes capables d'aller au la parce que li fi xew yëpp yi fi nit dong la ay détails maintenant dans chaque être humain il y a quelque chose de grand essayons d'être grand essayons de tout au-dessus de tout cela. est que tey euh, mën nañ jàpp ne. seen candidature ni ngeen koy waxee xam nga yaa ngi naan président Macky Sall na bàyyi ñëpp bokk. Mhm. wekkoo leen ko ci conseil constitutionnel wala dalul seen xel ngeen bàyyi conseil constitutionnel bi nga xamante ne moo war a valider candidature yi ñu nar a ñëw euh, valider seen bos. lu ngeen di ragal ba munoo leen xaar ba boobu ba tax ngeen ne euh, président Macky Sall na bàyyi ñëpp bokk. en fait li tax ñu naan du question ragal conseil constitutionnel du question dara. dem nañ élection déjà après élection présidentielle lépp a jaaroon yoon suñu candidature ñu valider. Mm-hmm. donc amul benn raison pour lu nekk suñ kanam duñ ko régler donc moo tax ñun fi nit ñi di xoolee ñun xoole wuñ foofu c'est juste que dañ xam ne na képp ku ko mën a éviter ba ay bakkan bañ ci rot nit ñi bañ ci ñàkk seen i bien lépp lu ñu mën a def pour jàmm am nañ ko def ñun côté boobu la ñuy xoox ndax nag ñàkk ñu fayda du ñu bàyyi kenn di ñu toroxal ak di ñu di ñu teg lu ñu warul teg ci réew mi parce que nag on a tous les mêmes droits ici. donc bañ fitna bañ coow ak xam responsabilité bi nga xam ne tey bu bu Sénégal doonoon kër Ousmane Sonko mooy taawu réew mi te loolu yàlla dogal parce que na Macky Sall moom allah kulli yàlla am am ayam wéy na dans sept mois il ne sera plus président de la république de ce pays donc tey jii bu ñu doon Sénégal kër la taaw bi mooy Ousmane donc nañu waxtaan Sénégal ñëpp on est tous pareils tey jii boo waxtaanee gi rek gis mbokk feeñ. donc am na yoo xam ne xaju fi comme ñun ñoo trouver la force après tout ce qu'on a vécu ne on pardonne on veut passer à autre chose le Sénégal mérite mieux. Mm. ñoom nañ xoolaat seen bopp def seen def seen mea culpa ñu toog waxtaan organiser réew mi Macky Sall dem ñu organiser élection bu fekkente ne Sénégalais yi continuer nañ ne Ousmane moo war a diriger réew mi mu diriger. gëm nga ni instant bi Ousmane Sonko mën na bokk ci joŋante yi absolument lan moo koy tere. ci nan. il est toujours éligible au moment où on parle bu ñu déposé woon candidature amul fenn fu juge constitutionnel mën a taxaw pour ne Ousmane du bokk amul ba noppi bëgguma am na ñoo xam ne seen dossier moo gënoon complexe. dañu xamante dëgg nag Sénégal douze douze ans yi lu ne xew na fi am na ñoo xam ne seen dossier moo gën a complexe foofu et pourtant dañuy bokk. ñooñu ñooñu. Khalifa Sall Karim Wade. alors ñaar ñi nga xamante ne tudd nga leen léegi muy xalifa Sall ak Karim Wade suba assemblée nationale dina euh, jub ci li nga xamante ne mooy seen dossier ñu war a modifier mhm. euh, constitution bi suñu code de procédure pénale ak code électoral ngir fexe ñaa ñooñu amaat seen éligibilité. Euh, yoon la pour que ñaar ñu war a mën a bokk rek ñu indiwaat coppite yooyu. ah xam nga waa Bennoo nag ñoom ñoo tulli te ñoom ñoo ma xam ah. parce que nag foo faut qu'on se rappelle les choses nan la demee euh, bi pour xa bi kàll Khalifa Sall pare procès il était toujours éligible parce que le juge n'a pas prononcé ne bu ne waratul bokk il va il a fallu que ñoom ñu changer euh, code électoral bi pour bloquer leen. oui Karim Wade pareil bi mu bi mu duggee ci procès bi ba mu ba mu ci pare teewul mënoon na bokk parce qu'il était toujours électeur ñoom ñoo ko changé pour mu bañ a bokk donc ñoom buñ demee ba xam ne lañ doon def te bëgg nguur rek taxoon dem nañ ba léegi tax na ba dafa dafa balafré visage u démocratie Sénégal parce que bu ñu ko bàyyee noonu bu ko bàyyee woon noonu qu'est-ce qui allait se passer mais dañ nar a dem ci élection présidentielle yoo xam ne Macky du bokk Khalifa du bokk Karim du bokk te pourtant ils n'ont pas appris de ces leçons là ils sont en train de travailler pour que Ousmane bañ a bokk voyez moo tax àdduna lépp looy def teg ko ci dëgg bul def dara rek parce que la situation actuelle te te, te donne benn euh, ne sois pas dans l'analyse situationnelle situation bi di la laaj li mooy sama intérêt non il faut être sur les principes mm-hmm. la justice les a La justice n'a pas touché à leur éligibilité. Fallait être des démocrates et les laisser participer depuis 2019. Donc ils sont en train de corriger leurs erreurs malheureusement. Il ne faut pas cette correction boobu nekk rek benn correction à géométrie variable et qui encore une fois s'adapte à la situation actuelle. Et c'est ça que nos hommes politiques doivent éviter. Un homme d'État qui veut travailler pour son peuple du jël mukk décision parce que situation bi da ko laaj politique yi. Hmm. homme politique bu nekk ci loolu. xëy na dinañ wax ne c'est un grand mbër mbëru mbëru politique la dinañ ko wax comme naan rek c'est Macky Sall c'est un grand politique mais il ne sera jamais un grand homme qui va développer son pays il ne sera pas quelqu'un qui va permettre aux Sénégalais de se réaliser tel qu'il a envie mais li mu def yëpp gisoo ne mën nga ko gis ci kanam boobu xar kanam boobu maanaam am na lu mu jot a malheureusement j'aurais bien voulu dire que am na lu mu def parce que réponse bi ma lay waaj jox su ma la joxee nit ñu dañ naan dama nihiliste man sur le plan matériel laa nekk di wax nii parce que xam nga yow mën nga ma ne non am na immatériel bilan immatériel am na bilan matériel mais sur le plan matériel. mais sur le plan le plan matériel le problème est que li mu réalisé daf ko def à un prix. mais c'est pas acceptable en fait pour le financier et le planificateur et le gestionnaire de projet bi nga xam ne loolu mooy suma corps de métier man je ne peux pas accepter qu'on endette le pays à hauteur de soixante dix pour cent c'est-à-dire que aujourd'hui on est fii lañ ñu ngi ndox ndox ci baat pour lan benn terre benn berte come on soyons sérieux tu ne peux pas avoir utilisé quarante mille milliards 12 ans à la tête de ce pays ce que tu vas nous léguer comme li gën a rëy benn terre benn perte terre boo xam ne ça t'a coûté 1500 milliards le quart du budget du Sénégal yow bu fekkente ne il te faut le quart du budget pour def 30 kilomètres de train qu'est-ce qu'il va nous falloir pour def que qu'il y ait un réseau de mailles de train sur tout le Sénégal un homme d'État buy choisir un projet dafay choisir lu viable lu nga xam ne ce budget attan na ko

moo tax en finance il ne faut réew boo ko yoree ne ne fait jamais de planification sur li ñëwagul il fallait qu'on se focalise sur nos recettes notre endettement et nos charges comment on peut créer benn structure budgétaire saine qui nous permet de payer nos dettes de faire nos dépenses de salaire et de fonctionnement ba noppi mu dese ñu benn liquidité pour ñu am ce qu'on appelle l'initiative de l'investissement nga xam ne booy ñëw di investir dans un secteur tu vas pas les gens te dicter ce que tu bi ñu ci def yëpp daanaka 15 pour cent la doon suñu xaalis bopp 75 pour cent dañ ko leb et Patrice Lumumba la main qui donne peut être lourde et c'est pour ça qu'il parce que je sens la main je sens votre la main qui donne et la main qui dirige. D'accord. quand tu ne maîtrises boo amul suffisamment de liquidité ba quand tu fais un projet tu ne peux que compter sur les prêteurs ben les prêteurs vont te dicter où va aller l'argent ils vont te dire l'argent doit être encaissé par une entreprise étrangère l'infrastructure doit être gérée par une entreprise étrangère ils vont te définir un coût tellement lourd ba noppi bu ñu paree ne la sénégalais yi fay xaalis bi ñun du ñu laal xaalisu terre parce que xam nañ ne xaalisu terre bi mënut a fay terre bi ya ñuy fay ñun près de vingt milliards chaque année pour ñu gérer ce train. Mm. bilan boobu mënoo koo am pareil parallèlement quand tu investis dans le matériel mooy le bilan matériel le bilan matériel doit soutenir l'activité économique c'est ça l'importance de l'infrastructure quand un homme politique investit dans les infrastructures c'est pour que ces infrastructures permettent benn meilleure productivité loolu mooy objectif bi j'investis ci benn ci transport pour que économie gën a am mobilité et que mobilité boobu impacté sur la productivité j'investis dans des salles de classe pour que le niveau des des, des élèves évolue j'investis dans un système de santé pour que sénégalais bi di am une expérience bu demee ci hôpitaux yi expérience bu positive ba noppi am longévité am bu dund gu neex. donc quand tu investis sur infrastructure que ce soit des infrastructures qui soutiennent l'économie qui soutiennent l'éducation qui soutiennent la santé infrastructure yooyu du loolu mooy bilan bi bilan bi mooy infrastructure yi bar impact la am sur niveau de vie qualité de vie parce que nag. hôpital du santé. salle de classe bu yàggee nga nii du éducation. parce que cinq yaa ngi naan damay bañ wax li ma xalaat moo waxee ñu ne dama nihiliste. dama nihiliste et pourtant mon analyse est très froide li may wax nii c'est pas parce que tu as construit des classes que le niveau de l'éducation sénégalaise dafa évoluer parce que li tax xale bi nga xam ne dafa dugg école six ans. 19 ans mu am bac mu am benn niveau bi li koy jox loolu du salle de classe bi nga tabax li koy jox niveau mooy salle de classe bi d'accord mais enseignant programme bi ñett yooyu mooy tax voilà le résultat ak environnement bi kër nit ki bu génnee mu nekk un jeune sénégalais mais un bon citoyen on a formé un bon citoyen et un bon acteur économique voilà objectif bi euh, santé pareil tabax hôpital c'est bien nga tabax hôpital mais bu fekkee ne hôpital da nga hôpital ko tabax ba noppi nga teg un très mauvais système de gestion qui fait nit ki bu ñëwee day fay xaalis bu bëri amul accueil bu baax médecin bu baax du ko accueillir hmm. ba noppi bu toggee ci hôpital bi dañ koy bindal médicament ba mu daw mais kooku tabax nga hôpital boobu mais est-ce que am nañ un meilleur meilleure santé non acteur économique le sénégalais qui veut jug di liggéey bu dee moom bu buggee jigéen wut démarche administrative corruption bu ko rey bu soxlaa financement dem banque ñu ne ko taux de huit pour cent bu bëggee employé des jeunes sénégalais jeunes yi muy employé ñoom ñëpp kenn formé formé wuñ ci kenn pour mu comprendre luy entreprise ban comportement la war am entreprise li ma la cité nii mooy les éléments les plus importants. wax xam nga su ma la. damay damay damay bëgg taxaw fenn parce que xam nga li nga wax am na solo mais euh, nattukaay bi laay bëgg a xam. Mhm. xam nga soo waxee nii dama naan la ndax da nga yor document buy firnde li nga wax ne. impact boobu muy am si population bu ñu ko doon natt nii la toll par rapport ak au départ bi ñuy defee protection wala bi ñuy planifier fii lañ bëggoon a est-ce que document ba nga mën a natt ba wax li nga wax. merci beaucoup document yooyu yaa ngi fi xam nga tous les pays dañu souscrire ci IDH. oui indice de développement humain. Mm -hmm. un homme d'État travaille pour le développement de sa nation xam nga on d'accord. indice développement humain indice la bu nga xam ne indice syncrétique la c'est-à-dire que. basé wul ci benn élément benn trois éléments la te trois éléments yu lii la dane si un état travaille pour que askanam gën a jàng gën a éduquer gën a former mhm. dañuy mesurer ndax am na évolution foofu su amee évolution rek nit kooku nga xam ne dafa gën a jàng dafa gën a éduquer dafa gën a former forcément ça va être il va être un meilleur acteur économique c'est-à-dire il va produire plus donc si tu investis dans l'éducation sans te rendre compte, tu investis dans un agent économique qui va produire plus. Quand il produit plus, il va avoir plus de retombées. Quand Aram Touré a un meilleur salaire, ci 500 000 dem ci 150 000, qu'est-ce qu'elle fait? Elle investit ci santé, elle investit ci éducation, elle investit ci alimentation. Donc qualité de vie am wu, espérance de vie am day augmenter loolu mooy indice de développement humain on le base sur trois éléments l'éducation, capacité de création de richesse et qualité avant Macky Sall di ñëw bi ñu classé on était à la cent soixante neuvième position Macky Sall di ñëw douze ans après après quarante mille milliards on est à la cent soixante dixième position Abdoulaye Wade bi muy ñëw dafa jóge dafa jëlee IDH. yóbbu ko à une croissance de zéro point donc moom manqué na marqué na zéro point dix mën naa ne chaque année mu faire évoluer de zéro point de zéro point zéro un mm-hmm. te Abdoulaye Wade a vécu deux crises crise financière de 2008 crise de 2011 malgré cela sur une période de dix ans l'indice a évolué de zéro zéro point zéro un chaque année ba def zéro point dix. toog na fi pendant douze ans bientôt il a évolué de zéro point zéro trois. c'est-à-dire que ne tey bu ñu doon course de vitesse quand Abdoulaye Wade courait à quatre-vingt-dix kilomètres heure Macky est à kilomètres heure. Mm-hmm. et ça lii ma wax Je défie tous les ministres de Macky Sall de me prouver le contraire ils ne pourront jamais et c'est les faits ba noppi structure budgétaire bi fi Ablaye Wade bàyyi woon soo jëloon liquidité bi Ablaye Wade amoon mooy ce qu'on appelle les recettes nga rapporter les recettes par rapport aux par rapport ak obligation yi mooy li nga war a fay personnel war a fay salaire war a fay yëpp. pendant avant ñaari crise yi di ñëw mooy crise de 2008 Ablaye Wade day fay fay dette. fay fonctionnement mu dese ko ay milliards Macky Sall su fayee personnel su fayee salaire fay fonctionnement ba noppi génne dette bi daanaka c'est à quatre-vingt-dix-neuf pour cent il ne lui reste plus rien looloo taxoon depuis may alerté ci réew mi naan ñu ngi en tension de trésorerie te ki ñu yóbbee tension trésorerie bi mooy Amadou Ba celui qu'ils veulent mettre euh, entre guillemets le prochain candidat c'est qui est à l'origine de tout cela parce que il a été un ministre bu nga xam ne lu ko Macky sant mu def ko Macky di ko lebloo muy leb sans calculer pourtant c' était lui le technicien moom moo doon wax ne monsieur le président vous êtes un ingénieur je suis un financier faites attention quand on s'endette on augmente charge de la dette quand on augmente charge de la dette on est en train de baisser nos liquidités et quand on baisse nos liquidités vous allez vous retrouver dans une nga bëgg ci réew mi régler problème yi duñ ko mën ñëpp a ngi fàttaliku en deux mille dix huit li ñu wax ne dette intérieure bi dafa bëri woon entreprise yu bëri kenn mu ne woon fay vous savez c' était pourquoi c' était à cause de ça voilà le bilan de Macky Sall aujourd'hui kenn mënul wax ne avec Macky Sall l' agriculture va beaucoup mieux dans pays ceeb lañ ñu digoon ceeb donc xam naa turi Coulibaly Coulibaly duñ ma ceeb rek la ñu waxoon ne ceeb rek emblavé identifier des terres agricoles emblavé ko équipé ko ne booy yi dem leen bay ceeb gars yi bay ceeb ñu andi ko stocké ko consommé ko sur une année Sénégal nga xam ne xaw ma lu Sénégal dul consommé ceeb bokku loolu rek ils l'ont échoué inondation cent milliards tey la waalo gën a aay ma continuer wala ma yem foofu. non mën nga yem foofu. <laughs> parce que xam naa ne suñu continuer on est pas là bilan du du président Macky Sall ndax dina dina gudd mun nañ fi lim yeneen i euh, programme yoo xam ne ñoom def nañ ko jàpp ne euh, ci luy euh, désenclaver waaye tamit fexe décentraliser yenn politique yi ba yenn dëkkuwaay yi am si yenn dinaa si. waaw su ca décentralisation budget bi fa mu ko fekk fa la ko bàyyi. 3 à 4 pour cent du budget national. et j'ai été moi xam nga li tax mu mu mu doy waar moi j'ai été conseil technique de ce gouvernement là moo tax yi ñuy wax yëpp dañu sonal nit ñi rek ils savent que ne bu ne lii la xam-xam wax ñoom ci pexe la ñuy ne dama leen ko yàgg a wax su ma nit ñi ñëpp xamee pour ce slogan que j'utilise xam-xam du pexe c'est à cause de ça ñoom ñoo tax ma am inspiration boobu parce que da ngay toog analyser ne leen lii la lii la science wax lii la environnement wax lii la territorialité des politiques publiques wax lii la les sciences de la planification wax lii la décentralisation wax décentralisation dafa wax ne les pays développés parce qu'ils ont compris que à travers décentralisation ni nga mën a impacter sur toutes les localités

Après, on te dira PUDC. PUDC, c'est même pas, c'est même pas milliards par année. Le monde rural, cinquante pour des Sénégalais. problème mu problème yooyu lañu la ñu nekkee moo tax liggéeyuñu comme nag yàlla dimbali na leen ba toog nañ fii ci à travers des njuuj njuuj njaaj ba toog fi tooñ nañ Sénégalais yépp jéggal nañ leen lépp na may ñëpp jàmm te abaleeg jàmm xam ne ils nous ont fait suffisamment de tort. mais sam nga sañ-sañ boobu ne jéggal nañ leen lépp. ah mais suñu leader moo ko. di quand je dis jégal attends mais man su ma nee jégal nañ lépp man je parle sénégalais parle ñëpp est-ce que am ngeen sañ-sañu taxaw ne. baal non xam nga quand on dit jégal nañ leen lépp. mooy animosité haine bi ñu bëgg a dugal suñu biir dañ ko jël teg ko fële. ñu nekk des frères et des sœurs dans une famille il peut y avoir des problèmes nit mën na juum ñu jégalante bañ a yóbbu mbir mi ci xeex entre deux individus. Hmm. nañ ñu bàyyi ñu ñëw dugg ci réew mi ndànk ak ci jàmm ak salaam ñu ñëw def réforme ñu war a def on mettra la forme dans tout ce que nous faisons y aura on sera toujours transparent avec les Sénégalais mais nag jàmm moom mooy l'objectif foofu foofu tax ñu naan jéggal nañ ñëpp parce que bëgguñu nit ñi yaakaar ne ñun dañoo fas yéene ñëw pour di fayonto ñëwuñ tam pour di tooñ parce que nag mag ñi dañ wax ne kuy tooñ di mucc hmm. waaye kuy fayu tam doo mos a noppal donc ñun ñëwuñu fi pour continuer di di tooñ kenn ci askan wi mais ñëwuñ fi tam pour continuer di fayantoo lépp lu ñu mun def foofu loolu mooy suñu taxawaay. dinaa delluwaat assemblée nationale. Mhm. article 87. ñuy wax dissolution assemblée nationale mu nar a euh, bu ñu ko euh, adopté may euh, président Macky Sall mu am sañ-sañu. Mhm. dissoudre li nga xamante ne moo di assemblée. ba tey ku mel ni euh, Doudou Wade di wax ne war nañoo mën a jël alinéa dugal ca njàmbaar si ngir wan président ne ko euh, warul mën élection yi bi mu amee léegi un an après ñu war a mën a dissoudre équipe bi di nii loolu est-ce que tey euh, si yow dafa am leneen lu làqu gannaaw article boobu ñu yëkkati ngir bëgg a ñuulal assemblée nationale. xam nga en fait lu mel nii. quand un président de la République le demande dans un pays comme le Sénégal en 2023 bi ñu toll mm. le président de l'exécutif di demander la possibilité de ne plus avoir un délai à respecter pour dissoudre l'Assemblée nationale oui. c'est-à-dire nit di xalaate noonu rek loolu moo lay wan ne il this guy is not fit anymore for the power c'est-à-dire il n'est plus en mesure de diriger ce pays c'est-à-dire que xamatul li xew ndax ñun ñi xam li xew ñun man xam naa ne Ousmane Sonko ne pourra jamais être un président de la République comme Macky Sall l'a parce que quand il va venir dina wàññi pouvoir exécutif dooleel assemblée nationale dooleel justice. na du nekk ay dige rek. non mënut a nekk ay dige ñun on est au-dessus de ça mais même même waxuma sax affaire u dige yow journaliste yeeg sëriñu tarixa yeeg réew mi ñëpp a maase ne dans notre système de gouvernance le président a beaucoup trop de pouvoir hmm. loolu du du waxu Pastef ñépp a ko d'accord tout tout le monde dans ce pays sait que le mag le président de l'exécutif est en réalité le président même de législatif du législatif et du judiciaire tey Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi justice bi ni mu comporté woo da ngay sentir ne bu amoon une véritable séparation entre l'exécutif et le législatif législatif euh, euh, euh, et les choses ne se seraient ne la même manière lii da lay wan encore une fois ne bu bu ñu askan bi joxe bopp ba noppi di ko dim mu dummooyu mu yaakaar ne ñun ñoo ko tooñ ñun tooñuñ ko ñun on a compris notre peuple et on a posé sur une offre sur la table une offre qui intéresse les Sénégalais et ñu wan Sénégalais yi ne par notre comportement war ngeen ñoo mën a wóolu ndax bu ñu ay milliards intéressé woon man mi Moussa Balla Fofana rek bu ne ma ay million ak poste intéressé woon maa ngi benn boo yaakaar bu yàgg bu yàgg nag laa wax mais ñun dañu nekk dañ ci dëggu xam ne ay boroomi karaw yu ñuul lañu suñu avenir mi ngi suñu kanam du ñu jaay suñu ngor suñuy principe pour un petit poste wu duñ ko def mukk ci àdduna question bi balaa ma ci li li mu lay wan rek mooy comment Macky Sall est en déphasage avec les aspirations de son peuple le prochain président de la République ce qu'on attend de lui c'est que mu ñëw ne man maa nekkoon président conseil supérieur de la magistrature je ne le serai man maa amoon tel droit sur assemblée nationale je je le je le retire dañu xaar ci prochain président la république mu nangu tekki ay pouvoir jox ñeneen ñi pour indi équilibre xaaruñu ci koo xam ne tu es à six mois des élections nga bëgg na yow léegi da nga bëgg. disposition bi fi nee woon ne mënoo dissoudre assemblée nationale lu dul assemblée bi dafa dund pendant deux ans nga ne yow da ngaa bëgg bu ñu falee assemblée tey gannaaw suba mën nga ko dissoudre loolu mooy loolu mooy loolu xanaa nag askan wi moomatul réew mi. da nga yaakaar dafa am leneen lu mu namm ci ginnaaw. mais peu importe lu mu namm ci ginnaaw c'est-à-dire que ne di ko demander c'est un problème de démocratie. C'est un problème de respect par rapport au peuple sénégalais, c'est ne pas savoir quelles sont les aspirations de ce peuple. Un homme politique doit être mais mais en, en phase avec son temps. yow mënoo askan wi di génn naan le président a trop de pouvoir nga naan donnez-moi plus de pouvoir. Mm-hmm. parce que c'est tout ce que ça veut dire hein. donnez-moi le pouvoir de vie et de mort sur l'Assemblée nationale et à tout moment loolu rek la demandé. pour faire simple daf ne askan wi may leen ma su ma neexee ma dissoudre assemblée saa yu ma ko bëggee parce que avant munu ko woon def lu dul assemblée bi nekk fi pendant deux ans au minimum mais yaa xayti ak ñu dund yëpp nit ku sensé li muy jàng ci comment on a utilisé la justice comment on a utilisé l'Assemblée nationale suñ buggee réew mu dal ëllëg foog exécutif di xam ne lenn rek moo ko mën a tax mu am bilan mooy xam-xam liggéey dëgg ak yërmande c'est-à-dire que foog ñu réorganiser suñu système ba nga xam ne ki fi nekk président la république day xam ne moom benn bunt rek la am alal ji sénégalais yi jox ko. ci la mën a sukkandiku rek pour defal leen li ñu bëgg ngeen mu am jàmm. tant que feerewuñu président la république ci ci ci ci ci noonu noonu bàyyi assemblée nekk espace boo xam ne ku fa toog la ëpp ci askan wee man je suis contre sax pour ay list proportionnelle man je voudrais képp ku ñu fal député département bañ la falee nga am cinquante pour cent même s'il faut aller au second tour man Moussa Bala Fofana loolu laa gëm man j'aimerais que assemblée ku fa toog ñu ne kii tund wa mu jóge ñu ëpp ca moom ñu tund wa ñoo ko fi teg ba noppi ñu am justice boo xam ne dañuy leer ne justice bi on protège les droits du citoyen jusqu'au procès am juge des libertés pourquoi même sax aller tànn procureur yi noo xamante ne nii kenn du leen mën a tànn di teg procureur bi di teg juge bi di di immiscé ci nu justice bi bàyyi justice bi mu am son fonctionnement man loolu laa gëm parce que loolu président bu teg loolu sa bopp nga daal la vie il faut savoir se mettre des pressions hmm. tey boo ñëwoon nekk président def réforme justice jox leen seen autonomie def réforme assemblée nationale jox leen seen liberté yow daf lay wóor na yow fi mu ne nii dese desetoo lu dul xam-xam dëgg liggéey yërmande rek nga fi mën a doxal am jàmm loolu mooy l'idéal dans le meilleur des mondes possible waaye ndax après. jafet ah, bi <laughs> dans tous les pays qui veulent évoluer li may wax nii moo am États-Unis moo am Canada moo am France moo am. dans tous les pays normes. dëkk Sénégal moom ah, moom laay wax alors dinaa ñëw feneen. Mhm. Euh, balaa maa yegg si euh, ci euh, rapport France ak ak Sénégal ku mel ni Birame Souleye. Mhm. gis nañ ci jafe-jafe yu mu nekk. Mhm. naka ngeen di gérer kaawam ci seen biir parti. écoute C'est vrai que c'est un homme que je, le connais bien, c'est un homme très bien, c'est un gars formidable et euh, il a, il a beaucoup aidé ses parents. Énormément de sacrifices. Mm. Maintenant euh, ki nga xam ne mooy jéem mooy juum xam nga bu defoon comme ñëpp toog këram. mais je ne m'intéresse pas à la politique de mon pays, je n'essaye pas de proposer quoi que ce soit. Je suis un cadre très bien payé dans l'une des administrations les plus illustres de ce pays. sama yoon nekkul ci politique mënoon na ko def defu ko il s'est engagé mu nekk nit ku correct di liggéeyal réew mi ba noppi nekk ci Pastef di fa def liggéey bu am solo def na loo xam ne njuumte la te àdduna ñëppay juum hmm. tout le monde fait des erreurs man mii je ne suis pas absous d'ici un mois deux mois tu peux entendre ma def erreur et il a été grand parce que nag tout humain commet commet des erreurs mais il faut être un grand homme pour presque pour regarder tout le monde tout tout, un pays ne leen je me suis trompé je, je vous demande de me pardonner mm il faut être grand pour le faire et il l'a été épreuve bu métti la pour Pastef nous c'est un grand homme c'est quelqu'un qui nous qui en train de faire un travail extraordinaire qui aujourd'hui se retrouve dans les liens de la détention xam nañ ne gor la dina ko muñ ñun tam dinañ ko muñ on va relever le défi de son absence parce que ça va pas être évident pour nous mais nag Pastef regorge d'autres Birame Souleye absolument mhm. absolument non c'est quelqu'un c'est c'est jàmbaar la jàmbaar dëgg la te ku séq ak moom liggéey da ngay xam ne jàmbaar mais yéen la bëri mbër yu ñu jàpp waaye ñun dañoo bëri mbër. waaw bëri ngeen mbër yu ñu jàpp. waaw mais dañoo bëri mbër. na am nañ mbër yu ñu jàpp. mais dañoo bëri mbër ci kàttanu yàlla loolu loolu loolu parti bi dina ko dina ko yëg. absolument mais. du du biram Birame Souleye rek Bassirou Diomaye ngi fi Fadilou Keita ngi fi. Mhm. am na ñeneen ñoo xam ne tam ñu ngi ci parti bi ñu ñu teg leen loxo. Mhm. loolu laay ne bëri ngeen ay mbër parce que lu ñuy incarné ni ñuy symboliser si parti bi ñu teg leen loxo. absolument loolu Pastef dina ko yëg. dina ko yëg mais grâce. ak ressources humaines bi ñu sénégalais yi di jox aujourd'hui le nouveau secrétaire général Ayib Daffé député qui reprend le rôle euh, de secrétaire général inter inter intérimaire mm-hmm. euh, JPS aujourd'hui c'est Ngagne Demba Touré euh, on n'a rien à dire <laughs> c'est le de l'équipe donc c'est vrai quand quelqu'un euh, Fadilou Keïta c'est vrai on, on ne remplace pas un Fadilou Keïta on ne remplace pas un Birame Souleye on ne remplace pas un Bassirou mais nag on naa des cadres et ay kilifa yu ne ci parti bi nga xam ne quand y a dañ koy def ba nga jaxal mm-hmm. et ça ñu ngi sant suñu borom bi ñu baaxee ñu am des gens de qualité qui viennent dire ñun ñu ngi fii di liggéey bu ngeen ñu soxlaa rek responsabilité bu ngeen ñu jox ñu jël liggéey ko bu ngeen ñu dell ñu dell et ça on le voit on le vit tous les jours xaw ma lu Pastef manqué mais ressources humaines moom manqué wuñu ko moo tax Macky Sall day sonal boppam rek ñun daanaka dragon à sept têtes lañ quand tu coupes une tête ça ça repousse automatiquement loolu lañ donc je leur demande vraiment euh, de mettre de l'eau dans leur bissap da xam ne ñoo bokk réew mi ñu jéem a nekk ci jàmm te jàmm ci la lépp xaj seen jàmm ak suñu jàmm ñépp ci la ci la xaj rapport le président Ousmane Sonko am tey ak euh, la France su ma ko waxee sama xel day dem ci li ma la wax communiquer euh, bi ministre Moussa Bocar Thiam génne woon. Mhm. ñu gis réponse su France 24. Euh, Ousmane Sonko ñu gis ko biir këram ñu defal ko entretien. finalement dafa mel nii dafa indi après euh, coow ci diggante ñaari réew mi diggante Dakar ak Paris que président yëkki ne ay kàddu di wax ne rafetluwul mhm. émissaire bi Élysée yónnee woon mhm. seen njiit. yooyu yëpp tax ma ne tey yan rapport la am ak la France ndax dafa xoolaat position bi ñu ko doon déggee avant muy wax ci réew moomu ni mu mel ak ni mu euh, taxawee biir Afrique ndax loolu dafa changé. non c'est la France qui a évolué ñun on a toujours été constant parce que li ñu seq ak France tey moom lañ mës a seq ak yeneen réew yëpp. ku ñu respecté ñu respecté la ku ñu jox cër ñu jox lu cër ku ñu nawloo ñu nawloo la ku def ñomb ñu ne la li nga def tegoo ko fenn ku def erreur ñu ne la jàkkaarloo ñu ne la tu as fait une ñun kenn du ñu yàpp ci lii yëg lii hmm. donc France mun mu munta am euh, déjà mënuñu am pase bi ñu am jaar-jaar bi ñu am ak ñoom ba noppi am benn déséquilibre bu am dans les rapports ah France am yenn droit yi mu am fii te ñeneen ñi amuñ ko ñun on a dit on rééquilibre cela parce que euh, passe droit boobu France amoon sur pas mal de choses ñun pour ñun c'est fini c'est-à-dire que li ma dégg Macky Sall wax ko temps yii au contraire c'est Macky Sall a changé. Hmm. maa ko dégg mu ne euh, vous je le dis à la France. Euh, il faut que bu ngeen ñëw réew bi ngeen xam ne c'est ouvert tout le monde vient à la chasse nga dégg nga ko mu naan maintenant ñëpp ay ñëw di compétir C'est Macky Sall qui évolue. On l'a un peu quelque part. Là, je Lui, Macky Sall, à la France, nu leen fi ñëw fii mel ni seen chasse gardée la vous allez devoir conquérir avec tout le monde mais ñun c'est ce qu'on toujours dit critique bi ñu koy def ci terre bi lan waroo woon tànn Alstom Alstom moment bi nga koy jël mi ngi en faillite technique. y a d'autres entreprises yu nga xamante ne nii ñu ngi amoon yenn performance ñooñu ñooñu gënoon mënoon offrir mieux et plus. C'était le débat qu'on disait. On pouvait faire affaire avec les Chinois, les Allemands, on pouvait faire affaire avec beaucoup de monde. Donc ñun ce qu'on a dit à la France c'est que am na benn rapport bu déséquilibré foog ñu équilibré am na ton booy waxee ak ñun dootoo les Français l'ont compris ils se sont ajustés ku gis Macron ni muy rapport bi muy am ak les peuples africains il a encore beaucoup à faire hein. mais au moins ce n'est pas la même chose que la même chose non plus que ñi et changement boobu ñun ñoo koy imposer. est que du donne bi moo change ñu gis ne président Macky Sall bokkatu. Mhm. et que tey président Ousmane Sonko mi ngay wax gis popularité bi mu am ak. Euh, euh, taxawaayam tax ñu ne ah nañu changer de fusil d'épaule am nañu taxawee ëllëg moo tax ñuy ñuy ñuy wax est que du looloo tax tey France gën a bàyyi euh, ku mel ni parti opposition yi ku mel ni Ousmane muy gën a wax ci seeni antenne ak nu mu mënti doon li muy symboliser rek mooy ñoom ñoo changé ñun changé wuñ ñoom bu ñu demee ba xam ne Pastef dañ ko war a respecter mais en respectant Pastef on respecte les Sénégalais tout entier parce que ñun li ñuy def dafa lañ ko suñu hmm. en changeant le rapport que la France doit avoir avec nous on change le rapport que la France doit avoir avec le peuple sénégalais et c'est pour ça que Pastef ne travaille jamais pour les intérêts personnels on travaille toujours pour l'intérêt du peuple on dit à la France vous allez devoir nous respecter à partir de maintenant. On ne le fait pas pour Moussa Balla Fofana ou Ousmane Sonko. Moi, j'ai vécu une onzaine d'années en France. man awma complexe jàng naa fi ñu jàngee awma mënuma am complexe yabuñ ma duma leen yab donc quand on le dit posture politique bi ñu ciy am aujourd'hui c'est pour le peuple sénégalais et c'est pour l'Afrique donc ñun on n'a pas changé c'est eux qui ont commencé à se dire il y a les choses sont en sinon on risque de perdre benn allié bu important parce que Sénégal c'est pas n'importe quel pays dans le monde mm-hmm. te malheureusement nos hommes politiques l'ont compris très tardivement gis nga Sénégal dafa intéresser les Américains dafa intéresser les Russes dafa intéresser les Chinois dafa intéresser les Arabes dafa intéresser les Européens. donc quand tous tous ces pays t'intéressent tu ne peux pas avoir peur d'aucun pays. parce que kenn pays yooyu du ñu nangu kenn ñëw di fi def lu mu fi warul def c'est-à-dire que France tey bu ne woon damay ñéem a def dara contre le Sénégal États-Unis moo naan ko hey non doo ko def parce que Sénégal est stratégique pour man Chine pareil donc ñun boo xamee sa valeur tu te fais courtiser tu te fais mul da ngay am ay offre tey jii boo xamoon Allemagne posture bi ñu jël pour Sénégal wala nga xam UK euh, tey ni ñu changé seen politique pour jël Sénégal def ko priorité te ñoom seen mindset moo gën a business wise que yeneen mindset yi liñ ci mën a am xamoonum toll. ci opération de charme ngeen nekk. non du question c' est le monde en fait c' est le monde qui a changé ñun ñoo ko yëgul rek ñu ñu ñu jiite ñoo xamul li xew mais adduna bi moo changé. Sénégal moo mus am benn position stratégique benn diplomatie bu mu mën a am ak faire travailler les gens pour son propre compte bu la ñëpp bëggee nit ñi liggéey pour yow. Hmm. mais doo topp ci kenn pour di ko jox sa pétrole di ko jox sa gaz mu lay defal assistance sociale ay ay ay aide sociale non mais loolu xam xam sa bopp la dañ ne gaynde bu ko bu ko bukki yabee rek ci doxin wala les sénégalais c'est des lions. Hmm. yàlla loolu la ñu defal ay mag ñu ay ay ay Cheikh Anta Diop Cheikh Ahmad Bamba mais on a tout dans ce pays. on a tout pour bâtir mais des vrais types de sénégalais et un grand pays malheureusement nag. des lions qui seront dirigés par des moutons ça il faut que ça immigration clandestine. Euh, fan yi ñu génn. Mhm. ba tey ndax gis nañu le ministre de l'intérieur. Mhm. dem fu mel ni Ndar. Mhm. Euh, ñaawlu li nga xamante ne rek moo am. lu phénomène bi. mel ni dafa dafa euh, dellusiwaat discours bi ngeen di woote ça fait pas rêver wala lu xew ba mel na ni ndaw yi dégg naa sax seen nit naan bu ndaw daw. nañu toog ñu tabax réew mi waaw lu waral euh, tey ba Sénégal fu mu toll 2023 lii di dellusiwaat di ñëw ba tey dañ leen déggul yéen politique yi. en tout cas je pense qu'ils ont entendu le discours de Pastef parce qu'aujourd'hui la force de Pastef c'est cette jeunesse malheureusement la pression sociale est tellement forte le désespoir est tellement fort et il y a eu tellement de mensonges par des politiciens de métier depuis que notre discours des fois on a ce discours a du mal à porter. Mm-hmm. mais nag yàggatul. parce que ce qui est incroyable aujourd'hui c'est que jeunes yi bëgg dem ñu ëpp ils viennent de l'intérieur du pays normalement c'est des agriculteurs c'est des éleveurs c'est des menuisiers c'est des mécaniciens ces jeunes là yi nga xam ne tey dañoo waroon a dugg dans les écoles des grands métiers du Sénégal pour ñu former nos meilleurs ouvriers. nos meilleurs artisans ñu defaral sénégalais yi montre ñu takk yëre yu ñu sol daal tey jii ñooñu ñooy dem te kan ñan ñoo leen yóbbu bateau yi ñoo leen yóbbu ñi nga xam ne dañu am benn pirogue buy jar un million deux millions ba nag pirogue bi pour mu fonctionner foog nga def ci benn trois cent mille gasoil pour pirogue bi dem mais parce que on a laissé suñu patrimoine écologique suñu suñu suñu poisson defuñu reproduction yi ñu waroon def protection bi ba noppi bàyyi nit ñi di napp léegi boo defee trois cent mille dem géej il te faut six cent wala un million pour mën a dem nappi jën te boo ñibbisee tu as tellement investi boo jaayee doo ci génn on a organisé la faillite technique des pirogues en faisant de sorte que la la ressource la matière première s'est éloignée de nos côtes en augmentant leurs dépenses de carburant et en faisant de sorte que mënatuñu tuddal seen njaboot léegi ñoom ñoo jël pirogue yooyu di yóbbu ñee nga xam ne amatuñ suuf suñu béyee mënatuñ sàmm mën duñ def dara ba noppi ñu continuer ñun di yar sunu doom yi ne da ngeen a war a tekki da ngeen a war a liggéey réew mi boo amul xaalis tekki woo di je tekki le vrai sens du mot tekki mooy signifier mhm. c'est-à-dire da ngay juddu nekk nit ñu ngénte la jox la tur mais amagoo signification c'est lourd nekkoo dara tu n'existe même pas ñu continuer eh, da war a teral sa ndey da nga war a teral sa baay sa seen seen koñ seen kër papa da ko war a defar am benn dignité boo war a am on on formate sociologiquement nos enfants à ça et pourtant nos politiques détruisent tous les espaces yi nga xam ne tey ñoom mën nañu réaliser cette ambition là et voilà le gouffre qu'il y a entre des gens conditionnés à réussir et des hommes politiques conditionnés à à détruire tous les espaces de réussite possible si nga gàpp boobu moo indee andee bi yi nga xam ne benn discours mënu ko régler gis nga lu ay jëf yàq wax rek du ko régler hmm. il va falloir que ñu teg réew mi ci loo nga xam ne dañu jël suñu ton gis nga ton yi romb océan bi ñu naan am nañ ci quota Macky Sall naan ma dégg ko et c'est là que tu réalises que <laughs> sa vision politique c'est un problème il dit ton bi ñun duñu lekk ton donc ton bi amaluñ njëriñ donc nañ ko jox européens yi hmm. mais yow mais man sama yoon nekku ci que eh, bugguma bëgguma mais li ma wóor mooy àdduna bi yëpp bëgg nañ ton donc man damay jël ton bi andi ko sama sama réew sama quota boobu danaa ci jàpp lu ma mën andi ko sama biir réew boo yi dem di ko jàppe ma fay leen ñu am xaalis bateau yu ñu koy defaree ñu def ay chantier naval ci réew mi Algérie rek day defar ay defar bateau Algérie gii paase day defar bateau dafa ay chantier naval c'est du tra xaalis la ñu andi thon bi def ko en en boîte de sardine thon boo jël def ko ci boîte de sardine mais thon boobu di nga ko jaay pendant deux trois quatre ans xaalis boobu ci kan lay dellu. Mm-hmm. ña ko ña ko mettre en pot ña ko nappi woon ak ña ña ña contrôle bateau bi loolu c'est de l'argent c'est des comme un homme d'État peut réfléchir de la sorte c'est extraordinaire en plus bëgg Sénégalais yi ndekkee ton matin bi bëri na aussi <laughs> donc te ton bi dafa cher <laughs> donc euh, euh, voilà si tu si tu te réveilles tu dis Sénégalais yi da ngeen doon jëndee pont 3000 léegi ton 3000 léegi ton 1500 la parce que suñu ton la ñu andi nees loolu acte boobu rek lan la mais tu viens de mettre plus d'argent dans les poches bu dee Touré Touré bi moom ton lay ndekkee ça veut dire que ne Touré Touré Hmm. si ton jugee trente mille dem dix mille Touré Touré bi am vingt mille francs ci vingt mille francs yi mën na dem voilà une bonne manière de mettre de l'argent dans les poches des Sénégalais c'est de transformer nos ressources et de faire de sorte que nous avons des produits ici qui sont de la qualité qui coûtent moins cher et qui nous permettent de faire de l'épargne parce que toi quand tu fais de l'épargne qu'est-ce que tu fais Les mesures prudentielles sont beaucoup mieux et les banques peuvent financer. L'économie, tout est lié. Mais bu fekkente ne réew mi dañu bàyyi et ça en 2022 tout le monde l'a vu 2022 l'inflation a augmenté de 10 pour cent c'est-à-dire que ni nit ku doon am salaire u 100000 léegi sa valeur u salaire même booy am 100000 toujours sa valeur u salaire léegi 90000 la mm. parce que le coût de la vie a augmenté de 110000 francs donc tu perds 10 000 fa léegi yow imaginel koo xam ne salaire am un million la woon inflation bi ñëw valeur salaire am wàcc à neuf cent mille léegi moom il est obligé mu dépenser cent dix mille cent un million cent mille pour génn ci donc am na cent mille francs bu mu doon épargner chaque mois par exemple qui lui faisait un million deux cent mille chaque année. Mm-hmm. bu moom bàyyi ci banque bi. sa veut dire que un million deux cent mille boobu mu doon bàyyi ci banque bi il il a été obligé de ko. te s'il l'a consommé il l'a consommé sur des biens étrangers mooy un million deux cent mille boobu mu doon bàyyi ca compte ba léegi xaalis boobu dem na à l'étranger parce que coût de la consommation bi dafa yokk ba noppi banque bi sur ses livres de dépôt a perdu un million de parce que Aram Touré ne laisse plus un point deux million ci compte boobu la ça c'est pas bon pour la banque gis nga lien bi ni mu amee entre ba noppi gis nga ni mu amee voilà la voilà les les les mécaniques un homme d'État doit comprendre Quand je prends le thon et que je l'amène dans le pays, en réalité, je laisse de l'argent dans, le poche, dans les poches des Sénégalais. Je crée de la richesse. Mais quand je laisse le thon partir ailleurs, ce thon-là, on va me le revendre à beaucoup plus cher. Et là, Aram Touré va devoir payer le triple pour am thon bi nga xam ne su ma ko andi woon mu jëndee ko la Voilà juste pour nit ñi comprendre. Très bien alors damay ñëw si beneen point. Mhm. muy sa euh, sa parcours Euh, tey yaa ngi Pastef mhm. lan moo euh, motiver ce choix pour nga intégrer euh, formation politique boobu alors moi j'ai toujours aimé la politique la politique moom suma papa laa ko jëlee donc man je savais très jeune que j'allais faire la politique et j'ai toujours depuis 2008 maa ngi politique j'ai fait une dizaine d'années dans le FSDPJ mais à un parce que formation politique yi ni ñu doon fonctionner problème yi ci doon am je me suis dit c'est pas ma place parce que man dama gëm ne politique moom xam-xam dong la. Hmm. politique c'est xam-xam. parce que xam-xam mooy nga liggéey liggéey bi ci xam lañ koy teg ba si politique du xam-xam j'ai rien à faire là-bas. Hmm. donc boo amee logique boobu c'est un peu compliqué avec comment ça fonctionne mais yàlla def euh, Ousmane mi ngi door a nekk. peut-être ci boobu Pastef doon def ay émissions lui-même ma ko doon seetaan parce que j'aimais les émissions politiques je pense des TV daan nañu ko invité. donc ma koy gis muy tenir un discours très centré sur l'économie et ça ça me parlait beaucoup et benn jour ñu bindante sur Messenger commencé discuter di wax. et là j'ai vu l'homme politique évoluer et ça m'a à mieux apprendre c'est quoi les textes de Pastef et j'ai vu que Pastef c'est une très bonne organisation politique ni ñu tëggee ça permet véritablement une démocratie au niveau, au niveau de Pastef. Donc ça m'a rassuré sur le fonctionnement du parti. Et après, j'ai eu le temps de connaître la personne. ñu discuter des mu naan ma ñëwal dugg Pastef maa ngi ko seen sec boobu xaw ma lu mu signifié di ko tooñ. yàlla def nag benn jour Amath Diouf club de la diaspora Houston Texas invité ko benn émission te comme Amath c'est un ami de longue date mu ne ma dama bëgg nga ñëw nga posé la première moom ñu daje sur place. donc ma posé ko ay question mu tontu et là j'ai senti que vraiment kii xam na importance su territorialité décentralisation développement et c'est là que le link s'est fait après on a continué nos discussions jusque ñu am projet bind livre bi et quand il m'a proposé véritablement d'écrire le livre je me suis dit ah là je suis tombé sur un homme qui est vraiment différent des autres parce que ça aurait été un politicien de métier il allait me dire bala livre bi ma def ci sama tur mm-hmm. c'est ça qu'il allait me dire mais Ousmane m'a dit dama bëgg sa vision bi nga am ñu mele suñu ñaari vision parce que on dit la même chose ñoo ko bokk nañ bind livre bi ensemble et là j'ai vu quelqu'un ku am humilité ku fonk xam-xam ku fonk nit et c'est tout ce dont le Sénégal a besoin parce que nag njiit du ko fi ëpp xaalis du ku fi ëpp xam-xam du du loolu du njiit njiit mooy ki nga xam ne bés bu dajalee nit ñi dina seet li gën ci askan wi mu defal mhm. leen livre bi euh, ñu taxaw si parce que sànq yaa ngi junj may wax euh, waxi décentralisation di wax ay programme yu fi nekk. Mhm. Euh, tudd nga fi Puma wax nga fi yeneen yoo xam ne jàpp nga ni. Mhm. niveau bu mu yem. àggul ci population yi de manière générale bu mu mën a wàcc li nga xamante ne mooy besoin yeeg soxla yeeg ci ci gox yeeg goxaan yi Euh, est-ce que libre bi dafa nekk loo xamante ne exemple la pour le Sénégal. Mhm. wala nekk na modèle boo xamante ne nii dañ koy mën a appliquer euh, moo xam ci dëkkuwaay bu mënta doon ci ci euh, Afrique wala ci àddina merci beaucoup pour question bi parce que. Euh, maag moom bi mu bindee bi on attendait à ce que les politiciens nous challenge. parce que man quatrième couverture bi mel ni Sénégal bi laay gis mu jay. moo tax may ne ndax pour Sénégal la. c'est pour l'Afrique parce que da nga gis dañuy Sénégal étoile lañ ko def mais ci ginnaaw carte carte Afrique lañ def. ce qu'on voulait montrer on voulait donner à tous les dirigeants africains pour que ñu comprendre pourquoi on doit donner à nos copines communautés le pouvoir de décider pour eux Mm-hmm. C'est ça le fond du livre. Le fond du livre voulait dire que un président et 25 ministres ne peuvent pas développer 196 000 kilomètres carrés et autant de localités. Oui. Ils ne peuvent pas le faire alors que ne tey boo amee deux cent vingt cinq maires très bien choisis je dis fait je fais exprès de dire deux parce que Sénégal warul am quatre cent maires waruñu am autant de maires que nous avons parce que y a des municipalités qui ne tiennent Mhm. sont pas viables. tey jii bu doon principe de viabilité rek la ñuy appliquer mën naa ne duñ dépasser deux cent collectivités locales te tu ne peux pas avoir deux cent maires bien formés bien équipés bien structurés avec le dispositif organisationnel bi ñu war a am ci municipalité avec des compétences bien déterminées et le budget qu'il faut nga yaakaar ne ñooñu mën nañ am impact boo xam ne say ministre dinañ mën a am impact bu gën boobu mënut a nekk donc il faut être il ne faut pas il faut être très limité en planification organisation impact. pour, pour ne pas donner à la décentralisation gëdd bi mérité dans ce livre c'est tout ce qu'on que l'on dit donner aux communautés li leen li ñu war a jox ba noppi on propose quatre ordres de collectivité locale mhm. on propose la commune ba noppi ñu ne commune bi ñu li ñu bëgg mooy nana focaliser ci quartier aménagement quartier urbanisation quartier ak les services que l'individu a besoin dans son quartier c'est tout ce qu'on demande à la municipalité département nañ ko jox yi nga xam ne c'est beaucoup plus nañ koy bokk politique carcérale sax ñun nañ bëgg chaque département ñu jox leen responsabilité politique carcérale comme politiciens yi ci kaw bëgguñu <laughs> na président département yi def ko ba noppi lépp luy recensement lépp luy données politique de la relative na ko département gérer ñu ne politique de la ville lépp luy urbanité nga xam ne ville c'est la complexité nañu jox ville mu mën a dem urbanisme aménagement économie mais nag nañu retourner à nos régions naturelles Mm-hmm. les huit régions du Sénégal am na dañu am waalo ci kaw am le Ferlo am le Bundu am la Casamance am Sine Saloum am le Bawol mm-hmm. le centre am Kayor Thiès am Dakar voilà les vrais territoires et quand on dit territoire dañ ko teg ci économiquement parlant territoire yi ma la cité yëpp kenn ku ci nekk ak sa économie bopp bokkul ak sa morom. d'un point de vue purement historique kenn ku ci nekk danga am sa poids historique sa histoire dafa nekk lu lu lu particulier kenn ku ci nekk da nga am sa benn li ce qu'on appelle écologie sa sa sa sa sa sa écologie bokkul ak sa végétation tout ce que comme écologie bokkul ak sa morom te kenn ku ci nekk da nga am benn identité de territoire c'est-à-dire que nit ñu fa julloo voilà donc lorsqu'on appelle benn un territoire c'est quand il y a benn homogénéité sur ces éléments la moo tax ce livre là y a professeur <laughs> ce qui extraordinaire c'est que quand on a écrit le livre des journalistes nous ont accusés d'avoir fait du plagiat et d'avoir plagié un auteur un un un un enseignant québécois parce que kooku dafa bindoon benn livre bu tudd territoire du Québec. Mm-hmm. Ousmane Sonko proposé titre livre territoire du développement ñu ne dañ ko plagié ma contacté ko. mu ne ma c'est votre livre je l'utilise dans mes enseignements parce que ni ngeen approché la territorialité dafa nekk fondement yi ngeen ko teg dafa nekk lu pertinent je l'enseigne un an après un étudiant m'a écrit pour me dire monsieur Fofana vous ne pouvez pas connaître ma vous et monsieur Sonko ma ne ko lu tax mu ne ma classe laa toog suñu enseignant tudd seen livre di ko wax et je suis au Canada donc quand certains pensent que pour que des Africains produisent il faut qu'ils plagient mm-hmm. en ce moment là des des des des intellectuels d'ailleurs utilise nos savoirs pour ubbi seen xelu e étudiants yi ce livre-là il est fait pour tous les amoureux de la décentralisation pour ñëpp ñi xam ne il faut qu'on redonne à nos communautés rôle bi ñu amoon parce que nag avant la colonisation lépp lu africain doon décider dañ doon daje. le développement par les communautés mu bañ a nekk beneen c'est ça l'objet de ce livre et on a pris une décision dans ce livre on a dit bu ñu yàlla tegee ci bopp bi en 2024 bés bu 2034 jotee Ousmane Sonko def fi 10 ans 25 pour cent budget Sénégal collectivité locale yi lañ koy ñoo koy gérer. Mm-hmm. aucun président n'a pris une décision aussi forte pour les communautés de ce pays. l'équivalent de quand on bu budget bi nekkee 4000 milliards on parle de 1000 milliards entre les mains des collectivités locales. voilà quintessence su livre bi et c'est ñun approche bi ñu am dañ naan. décentralisation ce n'est pas un ministère pour ñun c'est le pan le pan c'est le pan décentralisé de l'exécutif central c'est-à-dire que c'est comme 50 pour cent de l'exécutif qu'on va décentraliser et pour ñun approche bi ñu am ci ci décentralisation ce n'est pas benn euh, benn budget bu ñu fesaane non pour ñun la c'est avec la décentralisation qu'on va sortir les huit moteurs yuy développer l'économie du Sénégal parce que région compétence yi ñu ko jox planification du développement économique territorial aménagement du territoire plan d'infrastructure ak question d'emploi donc quand tu quand tu poses ces questions là quatre questions yii ma la posé quand tu dis quel est le plan de planification de la de la Casamance quel est le plan de développement économique du Baol quel est le quelle quelle est la stratégie d'emploi au niveau du Ferlo mm-hmm. Comment on fait la, planification économique et territoriale au niveau du Waalo Voilà des questions qui intéressent les Sénégalais. lii mooy quintessence au livre. merci merci beaucoup euh, Moussa Bal Fofana. Euh, waxtaan bi <laughs> yaatu na. Mhm. xam naa ne. Euh, bu ma génnee xam que waa Régis dañ ma dóor daa mel ni dépassé naa si temps bi nga xamante ne nii may waxtaan bi am na solo ndax jëlee nañ ci bu baax ay euh, jàngat yu am solo mm-hmm. euh, remercier la euh, remercier également ci disponibilité bi mm-hmm. ak taxawaay bi di remercier équipe technique bi ci njàppandal bi te moom xam naa ne foofu rek laa yël <laughs> dama tudd tur <laughs> dama <laughs> moomeelu réew mi yitteel ñu bari moo tax ñu fas yéene dalal ay kilifa boroomi xam-xam fii la teew di doon samay gan moo xam ci pouvoir lañu nekk opposition wala sax société civile lépp ngir gindi askan bi ñu dal di gëna leer ci li nga xamante ne rek mooy li ñu bokk ay bés bu nekk lay doon fii ci Sans Limites TV bu leen ko wut